tànku nemmiku yu Cheikh mun Mountakha Mbacké xalif général de Mourides doon amal ci Touba mat na tey jii ci àllarba ji dëpp fukki fan ak juróom-ñetti ci novembre 2020 laata muy jóge nag ci kër gi moom sëriñ bi teewlu na kuréelu xasida bu daari is bu tarxiya ginnaaw bu mu leen ñaanalee muy kuréel boo xam ne diirub li mu nekk foofee ci tool yi ñu ngi ànd ak moom ci liggéey bi kuréelu daara Hizbut Tarqiyyah bu Touba di ñaareelu kuréel bi ñoo féete njàngum bis bu mujj bii Cheikh mun Mountakha itam dalal na ñi nga xam ni ñoo nekk ci comité d'organisation bi ak mbooleem ñi dëkk Mbour dugal seen loxo ci waajtaayu ngan gi ba lépp yemb ginnaaw bu mu leen sante ci seen taxawaay bu rafet ñaanal na leen jéegoom bi mujj nag laata muy jóge foofu ci Mbour mooy tànk nemmiku yi mu amal ci daara ji nga xamante ni daara yi alxuraan la ak njàngum xam-xam sëriñ Bassirou Mbacke mu sëriñ Abibu di ko taxawee sëriñ bi dikk doon fa nemmiku bâtiment bu yees boo xamante ni tabax nañ ko wane loolu mbégteem sëriñ ba Bassirou won ko mboolem barab yi ci boobee nag la jubal si fii ci dëkk bu tedd bi di Touba ginnaaw lu jege fukki fan yoo xamante ni am na ko diggante tiib ak Touba Mbul muy tànk nemmiku yoo xam ne at mu ne Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko amal ci barab yi nga xam ne wooy jërëm bu baax wa Cheikh Mouhamadul Bachir moo ko sancoon te bu bisub tey muy wéyal ndono loolu